ay bismillah bismillah bismillah Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi man la mariatu fi ci saveur planétaire sha allah fas del dellusiwaat tey ci kàttanu yalla mbokk di len ziar ken ku ne ci yeen di wacc sen wacc way di len ñaanal yalla yibi àddina ak àllaaxira di ko ñaanal njabot geek ñep mbokk yi ngi xol ken ku ci nek ci yeen fa ngeen ne naka ngeen fa di len ñaanal yeen ñep ngeen ne ci jamm ñun fi alhamdullahi rabbil alamin ñi ngi sant yalla mbokk confinement oblige <laughs> ma ne ko ci oblige euh, tey dañu fas yéene ñëw ak originalu recette mbaxalu saalum nee naa leen euh, Mareetu Ndaw saalum saalum la voilà ni ko mère Diop daan toggee ci këram original recette bi nga xamante ne du am yàpp xar du am yàpp nag du am yeelu mbote du am dara lu dul keccax géej tàmbajang la ci daan def mais comme amuñu géej tàmbajang ñu ngi fekk géej bër mais fii géej bi ngeen gis ni moru la jën bi mori la tudd fii dañ ko fi woowee bacalao espagnol yeeg antillais yeeg nitu island yi nitu île yeeg yooyu dañ koy faral di jëfandikoo lu bëri euh, suñu mbokk doomu ndar yi ñoom sooda bay ak sama ñoom yaay ko ko jow chimère ñoom salaat de mori lañ lay may boo xamante ne foofu yëpp doo fa taxaw danga nga koy lekk di wëndaalu incha allah ci kàttanu yàlla dinañ leen ñëwal ak recette boobu tamit salaat de mori voilà donc mori bi moo xaw a jege tuuti tàmba jang ci euh, suux bu neex waaw mais moom comme dafa saf xorom dañ koy euh, xooj ci xorom si xaaral ma won leen ngeen xool ni muy mel mori baa ngi nii gis ngeen ko dafay am xorom ci lañ koy xooj salli ko comme ni ñuy salee yàpp rek lañ koy salee mais ñun li ñuy def da nga koy xooj 24 heures xorom si génn voilà da koy xooj ci ndox

très rarement man bu keccax bi sax sama mbokk gambien laa gis ñoo ko ciy gën a def voilà léegi li ñu gis ni netetu la netetu doom bi moom lay dëbb def ko suul ak soble ak ci géej ju tàmbajan bi mu lakkoon ci suufu kii bi mais léegi ñu lu ñuy def tàmbajan bi dañ koy tiital tuuti ci ñulub bi rek mu tiit rek dégg nga ñu génne ko rek nokk saale ko léegi gis ngeen nii c'est la même chose ça c'est juste pour vous montrer euh, lan la netetu bi di nekk ñi nga xamante ne xamuñu ko mooy euh, sumbula mbokk africain yu bëri xam nañ ko mun nañ ko trouver ci euh, boutique africain yi voilà african market yeeg yooyu. donc lii suñu netatu bi ñu dëbb bële ba pare mi ngi nee mooy netatu suul bi su ko defee lii boo dem baxalu saalum rek gerte noflaay gii day daal di dikk noflaay nii waaw boo ko noflaayu rek wutal ko beneen xorom kaani sama kaani bu xonq bi dafa jeex moo tax may jël bu verte bi fas yéene jël benn tucc tuccal ko moom tamit ci suñu euh, suul bi nga xam ne bu ñu paree moom la ñuy lal suñu kaw ñànkatan les tomates fraîches bi man maa man maa ko jongamawee rek lii mère Diop daanu ko def fraîche gee ngeen di seen maa ko fas yéene jël ak benn doomu soble nokkos ko ba mu tere bien euh, dégg nga maam ñu lu gaale ko kecceex bi ñu daal di dégg jàmm donc euh, ñoom Hélène Diagne <laughs> sama doomi nday yooyu Hélène Maguette Diagne ak ñoom Amici bi ak ñoom day xaddindoo yeeg Sala Seydi ak Ndeye Marie ak Antoinette Seck yéen waa Ndakaaru bàyyi leen di dugg ci mbaxalu Saalum yi di ko yàq waaw di ko taalaaleeg euh, di ci def ay yéelu mbote accu mbote mbote deful dara euh, dégg nga maaw euh, di ko roseek di ko tomate concentré di ko oignon vert ak di ko poivron bàyyi leen yooyu waay yéen waa Ndakaar waaye bàyyi leen yàqu waay yéen a ngi ni ceebu joolaa bi da ci dugg yàq ko ba mu ni yaxeet <laughs> <laughs> tey laay dee bu ma duggee ca groupe ba danaa fa fekk ojo yu ma dul fàtte ba ba may dee ay bismillah ñu jublu léegi ci suñu yóbbu yaaba yi très bien donc gis nga nii suñu ñulug tuuti ndox la ñu ñulug nii rek pour lu ñu ñànkatangee rek waaw may ko tuuti xorom bismillah mu judduwaale foofa toj ñu jël ndànk suñu keccex yi may ko ci petit tëmbal gis nga ko nii tuuti rek pour mu am yu ñu ci daj yeneen yi ci des dama ko fa yéene nokk saale ci gën gi mu ànd ak yóbbu yaaba bu ko defee damay ñëw tucc tuccal sama benn soble gis ngeen ko nii ci gënn gi ak tomate fraîche bi nii ne réel fii mu àndandoo jóg tuuti rek ñu daal di tey sóor suñu ñànkatan ay gis ngeen nii xaar leen dama bëgg tiital nii gejj gi rek dama koy tiital nii tuuti rek voilà dama koy tiital rek comme ça bu ma ko dugalee ci gënn gi di ko dóor mu mën a euh, dégg nga maam ubbeeku daal di fas kanamam nii beneen gejju bër bi moom mën naa ko ci teg sóoraale ko ci ndànk nee naa leen comme amuñu tàmba jang fi mu ne nii moom les petits doxantoo dalee géej ni yàqu ci dara la la ne bopp géej la yaxu bëer la noonu rek pour euh, cafka gi cafka gi waaw mu tokki tokki tuuti noonu rek tokki tokki aywa très bien ñoo ko gisandoo yóbbu yaaba yaa ngi nii ci gën gi gis ngeen ko nii léegi dañuy ñëw rek may ko tucc tuccal très bien macha allah gis ngeen ko nii suñu këf ki nokk ko su ne ni ku bëgg jël sa gën a kuur mbaa nga kii ko jàmb ko mu féete boor gis ngeen fii nii Sepinan naa ndànk bi gis ngeen ko moom ne lay tegu pour ñew dugg ci ci bir sul bi wa legi suñu nokkas bi moom lañ nane tuy ci cadre gi waaw fofu dal di wacc ba 0,59 ñu la très bien macha allah mbokk yi gis ngeen ko ni suñu gënn gi ñi ngi fekk soble bi ñoble bi ak keccax bi mo wañi won gis ngeen ni doomu kaani neeku ci reel gis ngeen ki netatu bi fi neewon sul bi la defar ni ak gis ngeen ko ni kañ waaw kañ neeku ci tuy waaw fi nak sama yalim daan def genji tamba jang bi ci suufu fourneau bi ci doomu tal bu tang bi ci lako mer job daan jël de nga ma may ko fa ba geejgi gi xawu firé ku nonu rek mu dal di ko génne dal di génne yax yi nek ci biir ak boutique bi raxas ko ba mu set ba yegg ci wécc légui gis nga ni nek len ma ñamal ko ni ci gerté gi keñ ah way bi sul way fofa toj bu ko defee ñu may ko ay tuccu tuccel ñew sebet suñu ciép comme ni ngay ñankatenge rek kuy tay nga tay njóoba da daan tay mais man damay ñëw rek <laughs> sóor ko ci noonu directement du ma tay <laughs> aywa très bien macha allah ne li ñu xool suñu suula ngi suul baa ngi foofa toj suul baa ngi ku neex nag boo amul netatu doom bi boo amee netatu poudre bi nga def ko ci nii la ko njóoba daan defee waaw te nii la ko sama maam bëggee woon sama turandoo Mariétu Kan Samba Abdoulaye nii la ko sama maam bu jigéen Awa Wuri Njaay sama yaayu yaay bëggee woon wa bu ko defé nga sor ko mu ñor ndox ba ñawé sañ ba waw kong way li moy ñamu mag way eh eh eh way elen Diagne bay len ñam yi ngeen di yak way eh bay len ñam yi ngeen di yak way day simple neex bo paré tek sa diw ñor ak sa limang man nga ci dema dema dem ba yalla defal la jamm te do yegg lu bari sa yaram eh way bay len togg yi ngeen di yàq waay Ellen Diagne way waaye amisi bi bay len li ngeen di def way eh <laughs> buñ ma déggee tey laay dee de. Eh, très bien macha allah très bien fofu toj sor na sama eh, keuf kangi sabet na sama ciep ma ngi ñew sor ko waaw na ni ñu kani gi ndank bala mu fi indi ay embouteillage momit waaw na nga ma tege ko ni kay suñu bol bu set be sor ko gis ngeen ko ni ni lañ koy def bayyi ko mu mus ndax il faut mu ñor ndox it il faut mu ñor ndox ni ko mag ñi bëgge sam bajjan fan ñang xali ni lako bëgge won xali mata ñang guy sigi yalla yalla xarel aljana sama ñom yaay ñom ñep ñima fi lim ñep yalla tuddu na ni dellu nañ ci borom bi sama mam yi ma fi wax ak sama bàjjen yi ma fi wax ak yeb waaw sama bàjjen day ndaw jaraaf ni lu ko bëggee won eh ah, ni lañ ko doon defé mu am nu mu mel sama mam mariam job xaali ni lu ko won eh sama mam jagn mari fall doomu ndar bu mag bi machallah ni lu la ko bëggee woon yaayu jaay yal na sa jamm sama yaay awa jaay ties léegi ni la koy bayyi ni muy ki bu rek incha allah ma réglé fa bi rek jël gerte gi lal ko nii ci kaw ñun su njóoba daanu ko tey day lal gerte gi nii ci kaw jël suul bi lalaat ko ci kawam réglé fa bi bàyyi suul bee gerte gi ñor mu yëngal yëf yu toj waaye foofu jaxasoo waay yow 30 minutes nga jóge fi eh li mooy lekk gu wér wàññi leen yàpp wi <laughs> non waa saveur Hélène Diagne ak am si bi mi ma ciblé tey jii bu ñu ma jàppee ba bàyyi ma du doy dara du doy très bien macha allah gis ngeen ko nii muus na gis ngeen ko nii bu ko kenn yëngal bu ko kenn jëgal sax fu ñu koy yëngalee su ko defee xoolal ni ngay def rek jël sa gerte rek lal ko ci kaw waaw gis nga ko nii waaw kañ gis ngeen ko nii man leen ma ma ci gerte gi ku ne saalum ne saf sàpp gerte waaw nii rek daal di domp ci gerte gi gis ngeen ko nii su ko defee nag dangay regle régler bi waaw sa feu ngay régler waaw neen ni na saf gerte très bien gis ngeen ko nii bul yëngal de okay xam nga li legi lal nga ko ci nga dal di jël ndank sul bi gis ngeen ko ni lal ko ci kaw gerte gi ni mu wasaro waaw gis ngeen ko ni <laughs> netatu ci loxo way <laughs> yal nañu yalla taxaw <laughs> netatu ci loxo suma paré ba raxasu ba jël de nga mam limong bi bomb ko ci loxo bi terre bi gis ngeen ko ni fofa toj mangok léegi nak nga def ko fa bu yem bu ndaw sax fa bu ndaw rek ndax gerte gi jël tempsam ñor comme il faut waaw gerte gi jël tempsam ñor suul bi yubi ya ba le petit nokkos dal di jël tempsam ñor gis ngeen ko nii waaw ni la ko sama badjan maam mari jani beugé won ah nii lañ ko doon défé nii waaw sama yaay mariane turpin mam boy mam boy turpin nii la ko beugé won ku wéddi laaj yoyu ndaw ku wéddi laaj yoyu ndaw ah ba nga laaj maretu mané ni la way eh bay len yak tok way elen jagne eh eh eh eh alors très bien machallah très bien ñu ñew may ko bi yeungal kagn gis nga ko ni ah wa ngeen góor ah wa ngeen góor nan ko ni nak diko tass gis nga ko ni dal di ñor ndox kagn dañ ñor ndox waay mais bu wowee weseng ba wow kong loolu arrangé wul kenn ndax day mel ni benn dànk bu ne foog nga jàllale ko potu ndox <laughs> gis nga nga naan ñi di tasaale gerte gi tasaale ànd ak suul bi <laughs> foofa daal di toj aywa bien macha allah mbokk gis ngeen ko nii daanaka léegi jot gis ngeen ko nii nii la ko mag ñi bëggee waaw xale yi koy bëggee noonu ndax dafa neex <laughs> ak kan neex ki may len ma ben 2 minutes mu wiccaxu tuuti rek ma yak ko waaw fofu dal di toj gis nga ko ni mu dal di ñor ndox ñor ñor bu silwise macha allah dal di jek gaaw ki fi mu ne nii mën nañ la ci tégal double bool yi nga tim ko ak sa pot ndox bo lekke ba sour nan sa ndox ba paré ñu dool sa ben lëwal bu tang jër nga won daloko to do yëg lu bari ci sa yaram mi ngi xooñ bi nak mom jarna lu ne ki rek xooñ bi rek nga laal ci sa tuuti diw ñor mayal mako sa tuuti diw ñor rek mën nalal ma ci limong patial lu bari ngay am ni la ko sama mag bu jigen day wali ñang bëggee waaw xaali mata ñang guuy sigi ko koy chéri amati jaan wan waaw son excellence monsieur baba wan <laughs> ko koy yaayu zahra wan ko koy doomi ndayu bintu ñang xaali mata ñang guuy sigi gis ngeen ko ni waaw foofa dal di toj wa may leen ma 2 minutes rek ñu yak inshallah merci way ma xalu salum ay wa très bien machallah très bien yep. piliw <laughs> mbokk yi mbaxalu saalum baa ngi <laughs> kii la tubaab bi naan la mbaxal dalee saalum kii ñuul saalum saalum yi ñoo ko moom <laughs> ba tax na Euh, ñoom it Ndeye Khady Ndoye macha allah ak ñoom aw Baro ak ñoom Antoinette Seck ak ñoom Ndeye Marie Guèye bëgg naa buñ ciy def nañ ko defee nii ñu koy defee waaw buñ ci yokk te buñ ci wàññi foofa daal di toj mbokki gis ngeen suñu kaani gi yàlla bu muy nag bu xonq bi dijj bu toll ni kaay leen xool ma rek teg ko ci <laughs> aw ma ko fi te bëgguma génn ci biti limon gaa ngi moo nami gis ngeen kii mooy suñu diw ñor gu neex gi gii bërë moom ngay ñëw rek may ko ci benn petit mu ànd ak wëndeelu gi mbaay mbaay foofa toj mbokki vidéo complète yaa ngi ci youtube bi mbaxalu saalumu keccax lañ leen indil original recette baa ngi nii lii mooy mbaxalu saalum waaw du weseñ ba wow koŋ day ñor ndox rek waaw foofa daal di toj kenn du ko toggee ceeb bu dijj <laughs> waaw kenn du ko toggee Caroline ak parfumé non ceeb bu sew bi rek baax na ci foofa toj yàlla bu muy ceebu mbay mi mbokki <laughs> vidéo complète yaa ngi ci youtube bi macha allah di la ñaan baaraamu kaw gi sela la wiccaxu ba mu teree bien baaraamu suuf gi sela la fente ba mu xoolee benn place man moom xam naa ci xooñ balaa njëkkee maa ngi ñëw attaqué xooñ <laughs> eh, diw ñor ko ñeex nekk ko diw ñor ko dompat nii ci keccax gi ne du am tuufa du am yoxos du am yéet <laughs> mbaxalu saalum daal ngi ni simple tagaaw 30 minutes nga génn waañ war a sa kër dégg jàmm foofa toj ay eh, bismillah di lañ leen indi loon tey salaamaaleykum Mariétou na rees jàmm